asubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima bokk yi nii seetaan fu ñu mën a nekk noo ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di ñaanal cheikh mouhamadul muntaxa sunu borom yàggal ko fi te wéeral ko di ko ñaanal njabootu sëriñ tubaa gi yëpp ah, di am mbégte nag bokk yi nga xam ne ñoo ni seetaan fii fii daaru salaam ci bis bi nga xam ne sunu nijaay sëñ fàllu galas si la daf koy amal di ci sant euh, sëñ Modou Roqaye mi nga xam ne mooy wasilaam euh, muy tey jii di le treize di gaaw incha allah nu fa yéene koo ànd ak bokk yi euh, di am mbégte nag bu baax ci jataay bi xam ngeen ne yitte yi ak xat-xat yi waaye teewul sëriñ lu moom day kenn ci ñun koo xam ne lu mu nekk rek dañoo war a bàyyi la ñu jàpp lépp ñëw wuy si ko muy bis boo xam ne it bisu ndigal la waaye su sant la su ñaan la fàttaliku wasilaam sëriñ Modou Roqaye kenn ku nekk xamit ne yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ne sunu borom du nangu cantu jaam bi lu dul def ko jaarale ci ki yàlla jaarale ci xéewal gi ci moom te moom kenn ku ne xam na ne sëñ Modou Rokhaya moo ko léppal moo ko defar ba mu mel nii mu mel euh, loolu yi tax na ba mu di ko fàttaliku waxtu wu nekk di ko ànd ak nag sunu way jur bu baax wi di sëriñ Cheikh Mbacké muy sëriñ Cheikh moom sëñ Modou Rokhaya mi nga xam ne kenn ku ne xam na taxawaare mu sëñ Cheikh ci diine ji kenn ku ne xam taxawaayam ci yoon wi ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ci barke xaadim rasul ba lépp loo xam ne naal na ko yéene ko mu defee ko ni mu ko bëggee euh, muy bis boo xam ne it gis ngeen ne da ci fàttaliku di ci rendre hommage soxna Bali Bintu soxna Maymuna mi nga xam ne kenn ku ne xamoon na taxawaayam ci laylatul xadr kenn ku ne xamoon na taxawaayam ci euh, yoon wi kenn ku ne xamoon na taxawaayam it ci jëf joo xam ne jëfi ngëneel la ak taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo la loolu nag la muy wone mooy euh, bu ñuy fàttaliku nit ku baax yërmande yàlla rek lay jur ndax jikko yu am solo yee ca nekk. Euh, mu di koo xam ne it moom sëñ Fallou nekk nit ku wayef nit koo xam ne nit ku baax la ndax defe naa 2003 euh, la ñu tàmbali bokk nekk ci béréb bi ñuy wax Lamp Fall noonu nag nu féetewoo ko defal ko sunu bopp muy sunu nijaay. te ba ñu koy def it xamuñu sax lenn lu nu boole waaye yàlla mooy boole ay mbir ba la ca juddoo lépp juddoo ci waaye mu nekk koo xam ne it ku yaatu la nekk nit ku baax nekk nit koo xam ne nit ku yéene ñëpp jàmm la euh, koo xam ne bu soñoon nit ñëpp jariñu loolu moo nu booleeg moom ñu def ko sunu kilifa di ñaan yàlla it suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko ci barke xaadimu rasul bis bii nga xam daf koy taxawee it mu yàgg koo taxawee ay ati ati at jaami yàlla yi di ko fi fekk ñëpp di ànd ak moom ci liggéey bu am solo bi kon noo ngi sant bu baax dañuy tàmbali rek jataay bi nii eh, wane ne noo ngi ci bis bi wane ne tàmbali nañ ko incha allah ci njàngum alquran bu yàgg waaye jàng xasiida waaye fas yéene koy yendoo ci dalal gan ñi ak kilifa yu baax yi xam ne ñoo fiy ñëw incha allahu ba ngoon ñu door a nag def cérémonie bi ci teewaayu Serigne Cheikh Anta moom Serigne Modou Rokhaya kon bis baa ngi noonu na ko bokk yëpp bàyyi xel te ànd koog noonu ñu koy dundal fii ci Touba Darou Salaam di sant yàlla nag bu baax ci boole gi ci suñu borom boole ndax bisu murid saadix la Serigne Modou Rokhaya nga xam ne ñim bokkal Serigne Touba ñëpp seeral nañ ko taxawaayam ci ci liggéeyal Serigne bi ba mu nekk murid saadix kon nag yàlla nu ci yàlla taas ci barkeem ci barke Xaadim Rasul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu